jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey nag ñu ngi toog ak kuréel bi nga xamante ne ñooy association des jeunes lutteurs ci jiital ba nekk mobile 2 mobile 2 moo nekk seen président tey gis nga gàkku 2 ngi fi ondu la fu xale bi di agogo ku lim da ngay doo jum waaye da dul matal ñoom ñëpp ñu ngi fi vraiment ñu ñëw tey seet si ki nga xamante ne mooy président Bira Sène mu dalal leen ñu waxtaan waxtaan wu yaat waxtaan woo xamante ne yaakaar naa ne lépp njariñu làmb la dañuy bàyyi gàkku deux mu nuyu mbokk internet su ko defee mu mu wax ñu lu ñu jot a jëlee ci biir su ko defee ñu wéyal waxtaan bi gàkku ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen euh, remercier yéen internet liñ fi ni woon tey mooy waxtaan ak président Bira Sène moo ñu recevoir ñun ñoo ko demande hmm. pour ñu reservoir ñu recevoir nañu te am na lu luñ ci jëlee lu bëri ndax dañoo indi woon ay ay points yoo xam ne gis nañ ku nekk fan yi làmb ji ni mu demee mbëri ndaw yi ak mbëri mag yëpp dañuy wax ñu ngi bëree di di di ñaxtu ndax saa yu ñu bëree ñu dagg leen saa yi ñu bëree xam nga ñu ñu sanctionné loolu yëpp moo ñu fi indi woon tey jii nii pour ñu wax ak ñoom pour ñu pour ñu pour ñu leeral ñu lan moo tax lan moo indi loolu hmm. lan moo tax ñuy dagg mbëri lan moo tax ñuy sanctionné mbëri hmm. loolu moo ñu fi indi woon ak ak yeneen aspect yu bëri hmm. xam nga léegi nag président Bira gis nañ ko si oyofam gis nañ ko si si disponibilité am woo nañu toog nañ waxtaan nañ déglu nañu wax nañ ko lu ñu metti ndax gis nañ Eumeu Sène ñu dagg ko 4 millions te xamuñu lu ko waral laaj nañ ko si tontu nañu gis nañ ñoom Liss Ndiago ñu dagg leen. Mm. aj leen. Mm. ñeneen ak ñeneen. Mm. Euh, gis nañ tamit comme retard yi dañoo indi woon ay point yoo xam ne mooy retard yi gis nañ ni bu ñu bu ñu bu ñu ñu retardé dañ leen di dagg minute bu nekk dix mille. wax nañ ko pour ñu pour mu wàññi ko ndax loolu dafa metti pare saa yi circulation bi dëkk bi dalay lay téye paren saa yi nga ñëw ba si buntu làmb ji mu xat xam nga li ma la loolu yëpp wax nañ ko si. wax nañ ko tamit si sanction yi si sanction yi mu sanctionné ku mel ne ku mel ne Liss Ndiago xam nga ak ñeneen ñu nga xam ne xamuñu leen sanctionné Mori Cargo sanction yi tamit wax nañ si xam nga ak mobile 2 mobile 2 suñu président tamit ñoom ñëpp dañ leen a sanctionné wax nañ si tamit euh, affaire di litre yi comme dañoo ñëw ba dañoo dañoo dañoo nekkoon si asaati jàmbur ñuy tere 10 litres comme bu ñëwee fii nii war na ñoo mën a may ñu ñu ñu ñu indi ay 10 litres xam nga. Mm. ñu indi lu taaral làmb kese la du yàq dara wax nañ ci tamit affaire arbit yi parrainage dañuy juum ay nit lañ. Mm. Euh, tey jii nii bu ñu bëree fii nii mu am mu am erreur comme ni koy defee si bëre simple mu am vaar da dem léegi ñu xoolal la ne la ah kii tamit kii boppam bi samp na wala kii fes bi laal na mm. xam nga ñu rectifier ko wala ñu xool ni yow yaa daanu. ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii euh, ñu confirmer victoire bu kële wala bu fekkee yaa daan ñu jox la victoire bu fekkee da ngeen a njaax tamit ñu woowaat leen ngeen bëriwaat. maanaam ci gàttal VAR président nee na moo ngi si incha allah dina am am nañ beneen beneen rencontre bu ñu war a amaat ñoom sax ndax ñun lu defar làmb mooy ñu yëkkati ñëwuñu pour yàq làmb ndax ñun suñu avenir si làmb la nekk ñun ñooy avenir làmb. xam nga ñëwuñu pour yàq làmb ñëwuñu pour pour pour wax kenn lu ñaaw ñëwuñu pour def dara lu ñaaw dañoo ñëw pour lu ñu protéger dañoo ñëw pour defar suñu suñu milieu ndax ñun ñoo ko moom budul mbër làmb mënul am ndax promoteur bi am na leen lu muy def CNG bi ñi fi nekk dañoo dañoo liggéey ba retraité ñun ñu ñun ñun la suñu avenir nekk si làmb ñun la concerné mbëri mag yi ñuy wax tamit mbëri mag yi daanaka am li ñu am am nañ ko ba pare xam nga ñu ñoo amagul dara si làmb ñun nag ñu ñoo war a taxaw pour li nga xam ne mu ngi gaañ ñu taxaw xeex ko taxaw wax ko ba ñëpp dégg ni ñu kat lii arrangé wuñu te ñi mu concerné tey mu ngi ñii waa CNG yi ñëw nañu waxtaan ak ñoom te gis nañ fi ay nit ñoo xam ne xam nañ fi sax lu ñu xamuloon xam nañ fi tey lu ñu xamuloon ñoo ngi doon dégg ay ay ñoo ngi doon dégg ay fii nii dañuy dañuy fay lu seer te ndekete fii fayuñu fi dara arène nationale bi. promoteur yi waaw promoteur yi. tey Covid bi la woon. ba léegi waaw am na yeneen ak yeneen yu yu bëri yoo xam ne sax xamuñu ko woon tey xam nañ ko. Hmm. règlement yi tamit dinañ ko gën a génne jox ko suñu morom bëri pare saa yi tamit bëri ñooy tooñ. Hmm. pare saa yi bëri ñooy tooñ. Hmm. xam nga man xaw ma ni woon. xaw ma ne woon Eumeu Sène fi mu jaar waru fa waru fa jaar. présidentielle bi dañuy tere mbër di fa jaar. mbër di jaar ñun xamuñu ko woon. waaw mbër kii euh, règlement daf ko tere. Mhm. Eumeu Sène foofu la jaar xam nga. Euh, wax nañ ko tamit ni ko tey supporters yi buñ ñu sais wala buñ nekkee ci kaw mhm. mbër bi munu ci dara mhm. loolu war nañ ko xoolaat loolu yëpp wax nañ ko ko mu ne yëpp dinañ ko xoolaat. dinañ ko càmbar gën a waxtaan ak ñun xool yi ñu xam ne war nañ ko génne ñu génne ko ñoom am na ay failles yoo xam ne wax nañ leen ko ñoom reconnaître nañ ñu loolu seen erreur la reconnaître nañ ko. comme yan. comme. Euh, comme dana ko leeral parce jaru ko jaru ko xam nga xam nga waaw wax na dëgg ay kilifa lañ. xam nga loolu ay détails yu ndaw la nekkul loo xam ne nekkul waaw koy jumte ñëpp koy ñëppay juum waaw ñëppay juum kon tey loolu moo ñu fi indi woon mm. te gis nañ ni am na lu bëri lu mu leeral am na lu bëri lu leer suñu bopp ñoo ngi ciy ñoo ngi leen ciy sant di may sama gars yi tamit ñu am lu ñu leeral jërëjëf. Onde ci yow laay njëkkee dañ ne association des jeunes lutteurs tey boo xoolee Eumeu seen ak ak ak yeneen ndaanaan bombardier bokkuñu ci association bi te teewul bi ngeen duggee ci biir di kaas bi nga xamante ne mooy intérêt lamb da ngeen leen cee boole loolu lan la. waaw ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di leen sant yéen ñi fi ñëw nii parce que lii nii tamit yombul. Hmm. mooy tey bëri na ñoo xam ne woo nañ leen wala wax leen ko duñ ñu sax dëpp micro. te commencement ba fin boobu ba léegi ñu ngeeg yéen. Hmm. mais mosoo leen xaar di benn yoon tamit quoi xàmmee woo leen mbër mu ndaw ak mbër mu mag kon vive la presse quoi waaw yéen nit ñi dañ leen a war a gën a dooleel gën a leen a jox cër quoi ñu ngi leen di remercier bu baax waa di remercier tamit président CNG bi nga xam ne moom moo ñu recevoir woon sànq waa ndax biñ duggee ci moom gis nañ ni daa mel ni suñu moroom daa mel ni ñun ñoo toogoon suñu biir di waxtaan daa mel ni man agogo laa toogaloon daa mel ni man tey kii laa toogaloon gàkku daa mel ni Mathieu daa mel ne ñu toogoon di waxtaan quoi liñ ko bëggoon wax yëpp wax nañ ko mais tey association des jeunes lutteurs bàyyiwul ñoom Eumeu Sène bàyyiwul kenn parce que jeune moom mooy bëre quoi. Mm. boo demee ba génn ci làmb rek sax lañ naan jeexal nga wala dara mais képp kuy takk ngemb rek pour man jeune nga quoi. parce que sport affaire xale la xale moom moo koy def ñoom ñoo ñuy beddi mais ñun duñ leen beddi amul association des VIP amul lii bu leneen daloon seen kaw lu dul lii sax dañuy jug taxawu leen. mais juste que ni ñoom ñoom ñoo fi jiitu seen association mooñu ñu fi jiitu mais dañoo gisul woon suñu bopp ci seen association boobu ba tax ñu dem beddeeku kii leneen. président bi tamit wax nañ ko ko sànq nee nañ ko bi ñu yuuxu ci micro yi dañoo amul woon accès pour jot ci yow. mais bi ñu amee accès pour jot ci yow dinañ wax ak yow loo xam ne nii amaana mooy loolu bi ñu duggee tamit wax nañu loo xam ne nii xamuñu ko woon moom tamit mu nekk nit ku modeste koo xam ne nii tamit biñ ko waxee li ñu metti lépp. li ci seen erreur daf ñuy wax ni lii suñu erreur la mhm. lii xam nga ñu woon nii lay demee ak nii mais ñu ngi ciy waaj waaw le kaada liis Liss Ndiago le cas de kii suñu président mobile mbër yi ñu aj yëpp yi ñu mës aj yëpp mhm. jàllale nañ fi seen message ba liis nee na ma liis sax nee nañu sax liis ni mu bindee kii wam moo baaxul sax parce que wax nañ ko mhm. xam moom mooy loolu ko bëri na ci luñ luñ développé quoi waaw mais kontaan nañ trop ci recevoir bi mu ñu recevoir. Hmm. parce que gis nañ ci suñu bopp quoi. Hmm. ñu ngi fi war a dellu siwaat waat ñu ngi war a toog ak entraîneurs yi wax ak ñoom parce que ñoom yàgg nañu ñu ko kon nii dañoo bëgg a toog ak association bi ak ñoom. Hmm. ménager yi tamit noonu. waaw association kii tamit. sage ñoom ñëpp ñu ngi ñuy contacter association yi nekk ci làmb yëpp. pare nañ tamit pour dem seeti ñëpp. lépp lu mën a waay jàppee rek pour làmb defar mun ñun looloo ñu tax a jóg sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare yéen ñëpp waaw dafa nekk loo xamante ne ni ñun dañ di ay xale te buñ toogee fii bëgg wax ci làmb am na ñoo xamante ne mën nañ ci ñu si xeeb parce que tuuti nañ loolu sax pour di wax ci yenn yi waaye wax dëgg yàlla donte luñ ci bëgg duñ ko am mais ñu wax lu si àq kenn suñu intérêt bopp indiwuñu fi suñu yëfu bopp indiwuñu fi lu ñuy yóbbu suñuy kër indiwuñu fi ndax daanaka buñ fi toogee liñ fi wax yëpp dalu suñu kaw dalu sama kaw dalul ci kaw gàkku mi hmm. intérêt làmb moo ñu fi indi ñu gis loo xamante ne nii dal na suñu kaw te si sunu kaw lay gën a méttee ñu ñëw toog na leen lii ànduñu si ñu gis loo xamante ne nii teg nañ ko suñu ay morom te ñun ànduñu si ñu ne leen lii ànduñu si hmm. ñu ne ñu carrément lii nag nii ak nii ak nii la demee bokk na saa si li tax mbër mi bu buy bëre supporteram yàq si ci kaw ñu aj ko ñu wax ñu ñoom buñ ko teg ñun ñu xamal leen ni ñun loolu ànduñu si. Hmm. waaw mbër mi bu fekkee ki mu àndal ci suuf def na lu mu war a def kooku sax mën nañ nangu waaye ki nga xamante ni supporter la ci kaw yàq après ñu daan si mbër mi ñun ànduñu si loolu moom wax nañ ko teg ñoom ñu xamal ñu ne tamit loolu dinañ ko xoolaat. bokk na ci comme lu waa ji bëggoon wax ñun dafa am détail yoo xamante ne nii. dañ ko war a xam te si manager bi la war a jóge ñëw si écurie bi. yéen ñun mbër mi. dégg naa ñu ci bari maîtriser wuñ dafa war a jóge si mbër mi. Hmm. wala sax ñoom si seen bopp si seen communication. Hmm. loolu bokk na si liñ liñ leen xamal. mënoon lañ ñu daan ci côté boobu ndax seen ñoom seen bopp communication bi ñu war a jàllale. Hmm. dafay des ndax ñoom dañuy basé wu si ñi nga xamante ne ñoo dox si diggante ak ñoom. te nu mu war a jàllee du jàllee noonu. mais nag loolu mooy rôle léegi ménageur bi nag bu fekkee ne moom saison dafa war a tijji mu dem ci écurie bi toog ne mbër mi nii ak nii ak nii nii la demee ndax ñoom seen bopp xamal nañu ne sax am na mbër yu ñu fiy dàgg ménageur yu ñëw kaas ne li ngeen dàggee mbër mi nekkul si réglement bi ñoom ñu génneel leen réglement bi kon xam nga ne ménageur boobu sax. maîtriser wul lu xew. Mm-hmm. voilà léegi bu ménageur maîtriser wul lu xew mbër mi mbër mi mu yor na nan lay def. Ah. mbër mi nga xamante ne ni dafa ñëw bëri si ñëw par exemple ñu jox ñu ñu sital leen loolu bu koy wax. Ondu sital na leen. Papa Sow Siteu dafay bëre dëkk parcelle Petit loolu di bëre dëkk parcelle dend ak cumbukaay Siteu mu loolu indi problème yoo xamante ni yow mbër mën na da ngay am jafe-jafe. ñoom ci côté boobu noonu nangu nañ ne loolu du ci mbër mi. Mm-hmm. maanaam organisation bu des la. Mm-hmm. maanaam yu mil noonu lañ partagé ak ñoom ñu indi leen li nga xamante ne ñun gis nañ ni làmb ji jaaduwul gis nañ ne carrément lii teg nañ ko tamit te mënuñu see mucc ñu ne leen carrément lii ànduñu si bu ñu sañoon ngeen dindi ko ndax jëmalul làmb kanam. ñoom ñu am luñ ci ànd ak ñun parce que tam dafa am loo xam ne boo ko tegee ñoom dañ lay indil argument yoo xamante ne da ngay xam ne kayit yi lii lii lii la wax. am loo xamante ne tamit buñ la ko tegalee yow tam nga indile sa xalaat. loo boo xamante ni nii tey lépp luñ ci wax tamit dang leen ni ñoom ñu nangul la luñ ci tënk wax dëgg yàlla bari na te comme niñ koy waxee dañ toog ak ay kilifa. mais li ma jaaxal mooy. waaw association. nombre bi ma fi gisoon ëpp na lii. waaw ñu jékki-jékki biñ leen convoqué nga ñëw y avait vingt personnes wala vingt cinq personnes ana ñeneen ñi. waa message bi moo jàll wala dañoo gedd wala lan moo tax ñu. waaw jërëjëf euh, bu ñu waree toog bu ñu waree daje ak ñii. Hmm. contacté wu ñu soxlawuñu mbooloo mi mm-hmm. li nga xamante ne ni ñoom ñoom ñoom ñooy bureau bi ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ci mm-hmm. ma gën cee tuuti ñu ñëw war a dajeek ñoom su ko defee bu ñu ñibbee ñu toog nag teg ko ci taabal ñu waxtaan ndax wax dëgg yàlla ñun ñun mm-hmm. li nga xamante ne moo nekk si eh, association bi di ay groupe whatsapp groupe whatsapp yi dafa bari parce que groupe whatsapp dafa am nombre bu muy jël groupe bii day fees nga ubbi groupe groupe boobu fees nga ubbi beneen groupe ba pare région bu ne gars yi am nañ ci ak ci am ci ay association bi am ci ay siège ak mel noonu ñooñu ñëpp mënoo leen fi wo hmm. loolu mënul nekk ñoom si seen bopp CNG xamal nañ ne ñoom ñoom si seen bopp dañu soxla dañu soxla di bëgg di liggéey ñun parce que ñoom for nañ ci wéyu béy ne lu nekk suñu ginnaaw ci ay mbër bari na hmm. te loolu aussi dëgg la te ñoom Bira Sène souligné na si kaaw Covid bi bu ñuy wax affaire ñàkk bi. Hmm. lan moo tax mbër yi ñëwuñu rafetlu ko parce que ñëpp dañoo war a ñëw. lan moo tax ñëwuñu affaire yooyu ñu ne ñun ñu ne leen reconnaître leen ñoom reconnaître ñu. Hmm. kon ñun mënuñu woon ñëw ba pare information bi amuñu ko. Hmm. dégguñu si lu dul mbër bu mbër bu ñàkkuwul doo bëre. te ñun ñëpp ay citoyen la kenn ku si nekk boo waree ñàkk yaa ñàkk jël sa bopp ñu wax carrément li nga xamante ni moo tax ñëwuñu comprendre moo xamal ñu ne bis mu bis mu bis ni ki tey lépp li nga xamante ni nii war na suñu digganteeg ñoom lépp lu am dinañ ñu contacter dinañ am information dinañ dinañ dina dinañ ñu dinañ ñu ko yëgal te ñun tamit lépp loo xamante ne yëg nañ ko ak lépp loo xamante def nañ ko te d'accorduñ ci li ñu mën a def ba toog ci micro bi wax ko dinañ dinañ dinañ dinañ def noonu ba toog ak ñoom ne leen lii ànduñu si lépp loo xamante ne dañ koy dogal tamit niñ ci woowee ñëpp dinañ ñu si woo comprendre nga kon tey li kon tey li nga xamante ni nii tey li nga xamante ni nii tey luy defar la moo ñu fi indi woon li nga xamante ni yaakaar nañ ne lii bokk na si li ñuy avancé loolu ñu fi indi woon xeexal nañ fi suñuy moroom yoo xamante ni nii gisoo leen fi kon ñun suñu yëf bopp indiwuñu fi si kàttanu yàlla duñ fi dégg ñaaw duñu dégg si ñun loo xamante ne jaaduwul duñ fi xu duñu xuloo kenn duñu xas kenn ñun doxuñu si loolu encore une fois ma ma maa ngi maa ngi jéggalu ah ngeen ngeen ngeen ngeen baal ma rek li ma dafa am solo ñun xeexuñu ak kenn xulóowuñu ak kenn amuñu ak kenn problème dañ fi nekk tamit yor mbooloo li nga xamante ni bu talee bu dalee kenn si ñun daf ñu naan lii dal nañu ñu xool li nga def ba xam jaadu na ba xam yaa tooñ wala tooñoo ñu ñëw génnee ko mais xeex yu ñu fekk kenn xulawuñu fekk kenn defante wuñu ak kenn. jaajëf am na solo jërëjëf jërëjëf.